bett na métti na ñun samedi dimanche lañ jot sommation bi ñu bind ci le 3 dimanche ñaata fan la woon ci weer bi léegi nag dimanche lañ ko jot dimanche lañ jot sommation yi wane na da ngeen génn dimanche lundi mardi tey lan la tey mardi kon donc dafa mel ni trois jours lañ ñu may ci. atelier bu toll nii ay oto yu fi nekk kenn xamul naka la toll man fi mu ne nii problème laa am gis nga oto jàmbur yi maa ngi ŋa actuellement nii dama dem ba jaxasoo mënu ma yëkkati gauche mënu ma yëkkati droite metti na trop nag metti na. état moo ko moom yëpp place boo xam ne nit day benn brique yoo xam nga la yow moomagul ko mais état mun a wax bul teg sa brique bu te yow moomagul ko parce que am na nit yoo xam ne seen liggéey la mais léegi yow teg nit teg brique. dem yàgg yàgg tekki ñaar briques ñi tekki juróom briques mais il croit que il a le droit or que moom amul droit c' est le problème de l' loo tekki benn brique waxal ah si tekki na brique dañu la yóbbu de tu n' as pas le droit de tekki brique mais si yow tekki brique ñaari brique jusqu'à def at at ci benn place rek nu ñëw pour jóge ci la. Sénégal dañ sonn dañ sonn ci benn action bu nga xamante ni ñun actuellement nii man maa gën a ñàkk solo ci pàkk bi waaye sama atelier bi maa ngi yor cinq personnes yu nga xamante ni ku nekk père de famille ñii kenn ku ne yor na jabar ñii cinq gos ñii trois gos maa ngi leen yore yor ay xale di leen jàngal métier actuellement nii foo ma jëm ne xale yu ndaw yi dootuñ mën a dem est ce que ñii fi mu ne am na ñu nga xamante ni danañ ma toppaat encore di xoslu du mën a nekk tasarowaat ci dëkk bi rek ambulants yi yokku te métier bi ci boppam dafa nekk lu nga xamante ni moom mooy doxal Sénégal cent pour cent dax képp ku ci am métier di liggéey am nga indépendance dépendre ci kenn sa métier nga léegi nag loolu fekkoon ne bëri nañ sànnim xeer mi élèves yi ñu ko def université ñi ngi toj di lakk ñëpp ngi toj di lakk docteur yeeg tout ça jàngalekat yi ñëpp ngi grève ba mooy ouvrier yi te ñun ñoo ëpp rendement ci population bi ñii ma lay tuddal ñi yëpp ba ci ministre président de la république ñëpp ba ci ku ndaw ki ci ku mënti doon yaa ngi yor oto ñun nga yaakaar fay fayda ci Sénégal ñun ñoo gën a sonn ñoo gën a sonn bëgg nañ nag ndimbal am nañ nag atelier bu ñu utal sax buñ am suñ président bi association bi réglé na bañ am atelier côté sëbi xotaan bon léegi nag liy problème bi moo ne temps la ñu mayul pour ñu mën a jël suñuy bagage gis nga ko ni mu demee nii kuñ jox sommation dimanche mardi tey gis nga ko ñu ñëw fatt bunt bi di lengi oto jàmbur yow amuloo nooy def benn pexe amul métti na métti na métti na métti na trop terrain boobu baaxul condition boobu renigul ku nu dem liggéey